mu ne day porter plainte Ousmane Sonko parce que ñaar a ci nekk. Mhm. bu ko porte plainte. dina am koppar. ak mbaa mu am ci tur. li nga wax ni keroog Idima Mbaye bi loolu la wax. yaa ngi comprendre. Mhm. maanaam c'est que euh, fu ñëpp jëm. Mhm. ngir am fa dara boo jiitoo boo fa bëggee àgg. da ngay nax ñi ci sa ginnaaw. te daanaka usman Sonko mën nañoo wax tey ne ak lu mu mënti nekk. lu mënti am. bu nekkente ni jàppuñu ko ca eh, maanaam mënuñu pexe ya sa ginnaaw antuwut mhm. gëw ma ne yii dina antu man boog li ma jàpp personnellement mhm. mooy lii lépp ay stratégie politique la lépp ngir jéem ko faagaagal kon bëgguñu mu ngi séntu pale bëgguñu mu séntu pale parce que ñaat ñaataa fi jaar lan moo fi jaar ñaataa fi jaar mhm. ci ay genre plainte genre waxal ko loo xamante ni amut. moom sax plainte na fi plainte na fi plainte na fi plusieurs fois sax. mais te mujjul fenn te keroog wax na ko def mhm. man bu ñu jël lépp rek ne Ousmane Sonko la. d'accord nga nga bësal sa baaraam foofu tuuti ñu may ñi nga xamante ne ñoom ñooy seetaan ñoom ñi moomee émission bi mën a sànni seen doon ñu xorom ci waxtaan wi salaamaaleykum. waaleykum salaam ku baax ki allo. allo may dégg. waaw sëñ maa ngi lay dégg foo ñuy woowee. maa ngi woote depuis Espagne Barcelone. eh waaye jàppale leen ma ci réew sëñ sëñ ñoo ngi jégalu dañoo am xaw a am tuuti problème ak retour bi dégg-dégg bi salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah ku baax ki ñoo ngi lay ziar bu baax. ñoo ngi lay delloo ziar bu baax naka yitte bàyyi nga am jàmm bu baax. ñoo ngi ñoo ngi ci jàmm ñoo ngi ñan yàlla di ñu wéy ji di la ko ñaanal yow itam. allah muhammad yàlla ko yàlla boole ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. amiin amiin yàlla amiin. ah baax yow itam suñu mbokk Sénégal yëpp. di mhm. xam ne Sénégal rek la ñu am. Mhm. vraiment eh, di am ci kontaan lool mhm. ngeen nekk suñu fertit eh, ñu leen di jaajëfal bu baax a baax ci li bi ngeen ni jottali li xew Sénégal. man nag maa ngi woote Espagne depuis Barcelone. baat bi xamee naa ko sama xalaat ci affaire porte plainte bi Mame Mbaye Niang porte plainte Ousmane Sonko. Mhm. Eh, dama xalaat ni rek eh, politique moo nekk ci gannaaw. Mhm. man sax dama ne dama naan à cent pour cent politique la. parce que lu tax. waaw Mame Mbaye eh, na fi lool ak problème boobu ba taxoon ko mu donc euh, yaakaar naa ni dañ ko waxoon ni que da ngaa luubal ay koppar ba taxoon mu démissionné mhm. kon lool yaakaar naa ni la ko taxoon mu démissionné kon nañ ko ko laaj bu pare kon. Mhm. waroon na man leeral lool bu pare afaa muy yóbbu yóbbu euh, ci yoon. Mhm. léegi nag bu fekkente ni moom dañ ko dénk suñu alal pare mu luubal suñu alal pare ba ñu wax que ni que yow da nga da suñu alal mu démissionné ci lañ ko dénkoon. Mhm. poste biñ ko dénkoon ngir dina naqarlu loola te leerul alal ci fan la ko dugal mhm. kon moom moom fi mu nekk nii moo ngi dafa doon jéem a seetal boppam waaye dafa gën a taqal boppam mhm. ndax tey ñëpp xam nañ ni fi mu nekk nii euh, Mame Mbaye Niang euh, bu fekkente ni bi wax nañu dëgg rek te yàlla tax waroon na mën a euh, waroon na mën a porte plainte waa ji bind liifar ci moom wala saat ñu tuddee ko kooku jiite euh, forum civil. Birahim Seck wax ni waa koy mangoog te ñu wax ni bind na ab ab ab parti def ci liifaram bi jagleel ko Prodac. dañu mhm. ko doon wooyee mbay Prodac. Mhm. kon. waaw mhm. <coughs> ah, mbay. Euh, kon kon waroon na mën a waroon na mën a lijjanti loolu. ba mhm. pare soog a lijjanti diggante bu Ousmane sonk mhm. kon dama naan damay wax ni kon euh, affaire bi politique moo ko lal cent pour cent. Mhm. waaw politique la kese. kon yow kon da nga jàpp ne li Cheikh Yérim wax euh, ci ci ci mbir moom la yow danga nga cee ànd maanaam ñi nga xamante ñoo fare ci président Macky Sall ñoom chaque fois dañuy wut ay pexe rek ngir rek jéem a jéem a faagaagal ak Ousmane Sonko. cent pour cent ah oui dama koy dëggal cent pour cent. maanaam plainte bi plainte bi moom jàpp na ni mën nañ koo layoog leneen lu dul maanaam ajuloon sax ñuy dem plainte. non ma aju ma xoolal dama lay wax ni la gis nga ma gis nga foofu ñu jëm noonu foofu ñu teg seen loxo baax. Mhm. non du baax parce que sénégalais aju na aju leen bu yàgg. Mhm. moo xam ci biir réew moo xam ci biti sénégalais yi kenn dalawatul léegi. Mhm. fi ñu teg seen loxo noonu du baax nañ ko teggi. la nañ xalaat leneen kay mais. seen digg suñu suñu diggante usman Ousmane Sonko duñu mhm. may ñu kenn ku ci ku ci teg baaraam way laa ku ci ku xool bët sax may ñu ko mhm. parce que lan moo de ni diñ ko doon tuumaal yëpp ñu ko doon tuumaal yëpp dara amu ci c'est faux mhm. ba pare lii dañu gëm ni li tax ñu gëm ni politique cent pour cent la bis bu nekk dafa am lu koy koy lu koy firndeel bis bu nekk dafa am lu koy firndeel lu war a ne la parce que tey xam gis nga seen digganteeg euh, euh, Karim Wade ni ko def digganteem ak Khalifa Sall ni ko def. Mhm. digganteem ak Ousmane Sonko ñëw gis nga. gis nga euh, digganteem ak digganteem ak Mimi Touré gis nga. Mhm. képp koy bañ maanaam ma Sall bëggul ànd ak bañkat. Mhm. kon ah? kuy wax gong rek la bëgg. ah. kuy wax rek la bëgg. bëgg. voilà bëggul ànd ak bañkat te léegi nag maanaam gis nga nit ci boppam même yow da jur sa doom. yor ko ci kër gi mm-hmm. yaa ngi may dégg mm-hmm. dangay ngay jur sa doom yor ci kër gi def li nga war a def ci kër gi lépp mais du ngeen ngeen ngeen wute gis-gis vraiment amaana bu dee doom ju nekk doom ju nga xam ne dafa bare dafa a dafa nekk bañkat dana ko jaral sax mu mu mu def séparation de corps mu moog yow mu wuti maanaam mu génn sa euh, kër dundal sa dund hmm? mm-hmm. mu génn sa kër daal voilà ma ngoog léegi nag bu fekkee lolo am na waxumalaat li nga xam ne nag réew mi la nga xam ñu seq ko kon ma ne kon moom mi nga xamante si moom la yàlla teg ci réew mi mu nekk ci bopp réew mi na xool bu baax fu mu jëmee réew mi. waaw te xam ni maanaam Ousmane Sonko nii mu teg loxo nii muy teg muy teg baaraam nii di ko jéem a fakkatal. Mhm. non foofu du baax. Mhm. dem seet leneen. mënoon nañu mhm. maanaam Ousmane Sonko mënoon ko jàpp ci yeneen yeneen am na yeneen yu gën a yu ñu romb yu gënoon a yomb pour ñu fakkatal ko ci. mais pas diffamation euh, daal. que ñaawte fii ñuy def ak kaawte fii ñuy jël di jël di ko ci deru Sénégal di tilimal deru Sénégal alors que fan yii dama ruus sax yàlla xam na ko. parce mhm. que image yi daw fan yi ci euh, ci euh, adduna bi. Mhm. dans le monde. ñu koy wane fu toll naan Sénégal xooleen Sénégal xooleen Sénégal alors. mu mel ne ñoom li ñuy def ni sóoraale wu ni am na ay doomu Sénégal yu nekk ci monde bi. feneen furul Sénégal. parce que affaire bu fekkoon day yem Sénégal kese. amoo mën naa am ñu dund suñu biir kese mais fu mu toll nii ah, diir gu mu xew ak léegi ci ñaari ñaari fan wala ñetti fan li ko yëg ci àll ci ëpp na ay ay millions millions millions de de personnes. kon da xam ni kon fi mu toll nii li ñuy def doy na. nañu bàyyi politique bi te eh, liggéeyal réew mi parce que képp koo xam ne xam nga xam moo toll ci politique. Mhm. Ousmane Sonko moo war a def politique. d'accord parce que dama wax ni maanaam comme réew soo koy laaj da ngay politique pour indi sa projet jaay sa projet ni lii laa leen bëgg a jaay suñu réew bi su askan wi soxlaa jaay nga jaay teeg ñoom ñu jox la seeni carte mhm. jox la seeni baat nga ñëw taxaw ni liggéeyal liñ la liñ la laaj. mais tey Macky Sall ci boppam santuñu ko politique dañ ko sant mu liggéey mhm. gouvernement bi ñun santuñu leen politique politique lu lu politique parce que politique nii ba jot ci liñ doon laaj kon dañu waral liggéey bàyyi taxawaalu beeg naxa sa xanda gi da layaam layaam ci kaw nit ñi nañu bàyyi loolu d'accord voilà asalaamaaleykum wa d'accord mm-hmm. merci merci beaucoup euh, ñu ngi koy remercier je pense que bu baax amoon nga laaj jëmee ci moom waaye mais mais dem na may bon dañuy dañuy maanaam laaj bi sax mën naa mujj nekk ab leer ndax euh, mu ngi lay dégg mu ngi lay mu ngi waaw waaw bu fekkee fam looy laaj maanaam dafa nekk de maanaam dama ne Sénégal bu ñu xooloon ci côté euh, bi ñuy waaj élection présidentielle en 2012 maanaam réew mi tàngoon na mais est-ce que 2023 diggante 2023 nga xam ne mooy waajal 2024 est-ce que du gën a du du gën a ah. metti ci ci ci ci askanu Sénégal ndax peut-être euh, ki ñu ko ki ñu ko seqal wala fi mi toll. wallahi alazim ku baax ki eh, maa ngi taxaw sama baat mi laa taxaw nii. Mhm. jamono yooyu man sama carte ci boppam Macky Sall laa ko wateloon laa laa ko sànn waaye wallahi alazim fi mu toll dama ko rëccu à 100 pour cent. billaahi wallaahi taalaa bu doon tay du ma ko wateel du ma ko sànnil mhm. ma bàyyi sama carte bu nekk bil mu nekk niil sax moo ma gënuloon ma jox ma jox ko. déet waay. xam nga ñoo bëggoon alternance tamit ñoo bëggoon ñam loxoy keneen rek. voilà voilà. non c'est vrai parce que xam nga tax waa waa xam nga lu tax boobu yooyu jamono néewal néewal doole bi ñu ko doon néewal doole. Mhm. parce maanaam euh, fi ñu bëggoon yóbbu Sénégal. Mhm. ñun itam ñun taxaw ne loolu du am. Mm-hmm. donc ñun Macky Sall xeex boobu mu xeex li mu li mu taxaw ni moom dafa jàpp ne dafa xeex ba jot ci réew mi déedéet nit ña ko xeexal ba jox ko réew mi. Mm-hmm. mais Macky Sall bu fekkoon Macky Sall ak Abdoulaye Wade dong kon du gis biti. <laughs> d'accord merci. wallaay wallaay la azim kon nag mm-hmm. fi mu toll nii li ñu jàpp ne bu jàpp naa ne li ñu dund diggante deux mille euh, douze. ak léegi moo gën a tàng junni yoon li ñu li ñu dundoon. diggante 2011 ak 2012. da nga jàpp ne li ñuy dund ci 2023 bi moo gën a metti lool lañu nara lañ doon dund ca 2011 ba pour préparer 2012. waaw du xoolal dama xoolal du ma sax 2023 bi 2000 kii bi dama ne la ñu dund 2000 2013. waaw xam nga 2012 ba ca réew mi. waaw. 2013 2014 2015 ba ba fi ñu toll nii li ñuy naqar yi ñu fiy dund ak ta yu tartar yi ñu fiy dund moo gën a tar fuuf. te lii Ablaye wax ah, loolu du tey tartar yi ñuy teg maanaam yéen maanaam comme yéen ñi nekk biir Sénégal si boobu parce que dafa am sama benn copain tubaab bu moom masa wax ne bu jamonoy crise nii mhm. eh, ñu mu ñëw ñu fekk ci fekk ci marché bi ñuy jaay nii mu ne ko di ko tooj ne ko kaay ñuy jaay la bagage mu ne ah estamos crisis eh, nga baal ma baatu espagnol mu ne ma ah dañu nekk ci crise mhm. man ka ay ah, voilà yéen da nekk ci crise mais ñun moom <laughs> ci crise lañ judd xam nga mu dafa reeba ba ba kii mais effectivement li bëgg wax moo am. Mhm. ma ne que ñun parce que ñoom ñu parce que ñoom xamuñu dem dóor daaq yi te tàqale yi ñun dañu judd ci dóor daaq yi dem te tàqale yi gis nga mhm. yéen ñi maanaam comme yéen ñi nekk Sénégal li Macky Sall def noonu Sénégal naqar wi ñu koy naqaroo la fi mu toll nii yéen xëy na du ngeen ko yëg mais ñun ñi nekk ci foyra bi ñun ñoo ko yëg maanaam mhm. ñi nekk ci àll nga xam ne nekkuñ Sénégal ñu ñoo koy gën a yëg à cent pour cent voilà parce que gis nañu suñu nawle yi nga xam ne ci boppam ñoom la ñu ñoom euh, ay nawle mi nga xam ne nawle président mi nga xam ne noonu lañuy ñuy seen doomi réew. Mhm. ak moom ni mu tëyee ci àll bi. d'accord non non non merci. merci beaucoup différence. Mhm. merci voilà su defee nag ñoo ngi lu baax ci kàddu yi bu dee am na lu ci rëcc lu ci lu ci euh, lu ci dëng ñu xam ni dañoo juum rek. amul benn problème ngeen ngeen jégalu. amul benn problème yi am na solo bu baax a baax a baax zéro.